Euh, dans ces dossiers-là dafa am euh, y a pas beaucoup de com. Mm -hmm. euh, le dossier il n'est pas accessible parfois nga toog ak benn su waxtaan ak moom euh, on te dit nga ne mais yéen pourquoi ngeen jàpp Ousmane Sonko parce que bu fekkee li ngeen li ngeen wane loolu ngeen ko jàppee c'est pas convaincant est-ce que wutul leen ko beneen dossier puisque rëcc na leen euh, tuuti ci li nga xam ne euh, moom mooy procès procès Sweet bi. mu am ñu lay def ay confidence ñu ne la affaire bi ça va au-delà de li ngeen ko foog ñu tudd ci un parti politique mauritanien mauritanien euh, une banque qatari ñu wax ay connexion en Belgique ay connexion euh, en France euh, ay euh, connexion avec le Hezbollah libane libanais euh, am na ay iranien ay chiites cest Euh, da ngay bu ñu lay wax loolu vous avez du mal à coller tout ça à la à la à la réalité. yow yow lan nga ci dëggal. qu'est-ce qui de la fiction. qu'est-ce qui la fiction ou de la réalité. xam nga mën nga woote histoire ni ñëw leen ñu xeex mais buy xam ndax waxoo diw ak diw ak diw ñëwal ñu xeex da nga woote xeex rek bul xam booy woote xeex ñen ñooy ñoom mën nga tamit sax sa yónnee euh, euh, woote xeex altine. mais doo xam xeex bi kañ lay jeex Ousmane moo woote xeex loolu kenn inventé wu ko. d'accord. bi mu wootee xeex ñan ñoo wuyu si moom sax mënul wax ni parce que ñu bari ñu ñëw wuyu ci xeex bi ñu bëri xam naa ne xamu leen yow yaay woote rek da ngay woote sa xew nit ñi ñëw mënoo xam ni nga ñëpp tey ji dama lay liiral benn note boo xamante ne ñu ngi ko tuddee influence des frères des frères musulmans. et de l'IRA au sein de la mouvance PASTEF dama ne c'est un c'est un document très long au sein de la mouvance de la mouvance PASTEF dama lire quelques quelques quelques quelques feuilles dafa gudd quoi le réseau de renseignement des services extérieurs bon je cite par le pays et dans une moindre mesure des services européens et américains on a on à plusieurs reprises mis en garde le rédacteur au sujet de l'influence croissante de l'Iran et des grands apparentés tels que le Hezbollah la même approche de présidence pointe les frères musulmans de la composante radicale cubiste. Au premier trimestre 2021 et plus récemment depuis septembre 2022, les recoupements menés au Sahel en coopération avec les réseaux marocains, français, belges, américains et israéliens ont mis en évidence des relations de plus en plus étroites entre ces mouvances iraniennes et la fédération russe, principalement au Mali et en Mauritanie. Les frères musulmans originaire du s'appuie en Europe sur la Ligue islamique interculturelle de Belge et de la Liga de islamistes Greenwich in Netherlands pour soutenir idéologiquement et financièrement les diasporas d'opposition des pays disposant d'une façade maritime telle que la Mauritanie et le Sénégal et la Guinée. Pour l'Iran et les frères musulmans, la Mauritanie et le Sénégal tiennent un rôle important dans la stratégie d'expansion de ces deux organisations. outre leur importance géostratégique outre leur la Mauritanie et le Sénégal sont les portes d'entrée au Sahel et permettent via leur façade maritime l'accès à l'océan Atlantique et à, à l'Amérique du Sud où le Hezbollah est bien implanté la production de gaz et de pétrole de ces pays est également un argument qui peut être ignoré taxawal foofu lii nii ce sont des forces yu jéem a au Sénégal. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut faire le lien avec euh, Ousmane Sonko et les gens de PASSEF euh, à l'été Parce que lui, c'est géostratégique. Ce sont des organisations qui cherchent à euh, entrer au, Sénégal parce que Sénégal dafa am une façade maritime. Mm Est-ce que mën nañ def le lien avec ce qui s'est passé est-ce que ñoom dellu defuñu dans l'opportunisme plutôt c'est-à-dire il y a des mouvements des tensions politiques au Sénégal ñu ñëw dugg pour exacerber ko e donner l'impression que ça implose. non non et pouvoir installer la violence de manière durable. non non même na yow da lay yow mise en scène ngay def ça c'est trop sérieux li nga wax nii. attends attends ci fi nga yegg ci lecture moo tax non xam nga document ça c'est un constat. non xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw xam nga préambule la document sept pages la mais dama lay ñamal tuuti rek xaaral ma résumé ko fii nii d'après le traitement des sources étatiques. bon, je saute les pays. Téhéran travaille actuellement à pénétrer les régimes ou les oppositions par le biais de cellules de Hezbollah et des gardiens de la révolution infiltrés parmi la communauté libanaise en Afrique de l'Ouest. Les réseaux libanais exploités font ressortir un intérêt pour les associations religieuses chiites et sunnites et certains ONG les travaux de vérification portant sur les réseaux de financement ont confirmé des liens entre certains cadres de passifs en Europe. les, les, les travaux de vérification portant sur les réseaux de financement ont confirmé des liens directs entre certains cadres de PASTEF en Europe et des structures financières managées par les frères, musul... par les frères musulmans de la branche radicale cubiste. le rôle du parti politique mauritanien Tawassoul est douteux dans les perspectives actuelles identifiées. L'implantation de l'Iran est confirmée en Mauritanie et au Mali. Une infiltration de la communauté lébanaise implantée au Sénégal est envisagée dans le renseignement. Dans le contexte, le rôle du, le rôle du groupe bancaire Al-Taqwa mérite un ciblage plus poussé dans le, dans le, dans le, dans le, dans le, dans le futur. Euh, pour aller vite, pour aller vite, le, les renseignements documentent et que les frères musulmans originaires de la mouvance radicale cuiste ont infiltré la mouvance PASTEF de l'Europe mhm. à des fins politiques et financière Certains éléments semblent attester l'implication des membres du mouvement politique mauritanien Tawasul dans le soutien de l'opposition sénégalaise. Cependant, ces renseignements demandent encore plusieurs semaines de recoupement avant de bon les antennes de la de, de la en Espagne servent uniquement à blanchir et à faire transiter les fonds vers la Mauritanie puis le Sénégal par le biais des architectures de Al Harb Al Asman liées à Hezbollah ouais, et comment tu interprètes tout ça. waaw xam nga tey jii phénomène bu mel nii bu amee Sénégal nga gis ni Sénégal dafay ñëw nekk un pays producteur de pétrole. nga gis ni boo xoolee un pays comme le Mozambique bi mu commencé di def di produit pétrole ci lañ commencé am des mouvements euh, terroristes dans le dans le dans le dans le dans ce pays là de même qu'en Ouganda donc au, au niveau de l'Afrique de l'Afrique centrale et de l'Afrique de de de de, de l'Est bu ñu bu bu phénomène yu amee mel yu mel ni amee ni les services de renseignement dañuy def ay notes pour anticiper. ce qui s'est au Sénégal comment se ko il naka ngay liiree li fekk que chaque fois gars yi bu ñu jógee au lieu ñu xeex Macky xeex APR jéem a jot ci nguur gi il cible Serigne Touba Baye ñas El Hadji Malick Boukounta Ndiassane tout le monde attaqué ñooñu lan mooy seen yoon ak ak ak li Macky di def. je penses que loolu c'est quelque chose qui vient comme ça mais ça savamment orchestré. fu mu jógee. non mais xam nga mënu mën a ni diw ak diw ak diw mais depuis un certain temps. mais c'est quoi l'objectif non non non l'objectif c'est de c'est en fait c'est de diaboliser les foyers religieux pour indi fi beneen gis gisu l'islam bu bokkul ak sunu bos. tu sais euh, euh, euh, bi Mohamed Morsi gagné élection présidentielle yi en Égypte. la stratégie des frères musulmans nga xam ne mu ngi judd en 1928 Hassan al-Banna moo créé le, le, le mouvement des frères musulmans c'est un mouvement qui existe dans toute l'Afrique de, de, de, du Nord la stratégie des frères musulmans bi bi fa bi fa Morsi nekkee c'était de faire de l'Égypte un hub de de la fraternité pour maintenant am ay tentacules dans toute l'Afrique noire et eux ils n'ont pas compris le fait que le Sénégal soit un pays à majorité musulmane ba pare amuñu nekk ñu un état islamique ñoom leneen daf leen jaaxal quoi pourquoi le Sénégal nekk un pays musulman musulman ñoo fépp nekk ñu un état islamique ils ont contacté des organisations au Sénégal des organisations politiques des organisations islamiques des organisations culturelles pour essayer d'influencer l'opinion à travers des financement à travers beaucoup de choses pas seulement mais à travers beaucoup de choses aujourd'hui li ngay dégg tey tey ji nit ñi da ngay dégg ku saaga sëriñ sax léegi defatul dara mais y a 10 ans y a 20 ans de cela boo bu nit waxee ni dara sëriñ sax da ngay daw mais léegi nit ñi tàmm nañu léegi di dégg ñuy saaga sëriñ si c'est une c'est une c'est une bataille boo xam te ne ñoom. la la la la désacra en tout cas les tentatives de désacralisation euh, sont en cours. mais ñoom réussir nañu loolu. récemment dégg nga sa euh, euh, euh, sëñ mu mu mun Moutala Mountakha Mbacké tu xalif général des Mourides mu jël décision ni Touba. képp koo xamante ni doo dawal tegoo fa rit malikit foofu ca Touba bu fa bu boo fay ubbi daara wala nga fay ubbi jumaa il faut nga il faut gars yi saytu ko parce que ñoom Touba rit bii moo fi moo fi am. parce que sëriñ bi aussi xam na il est am na renseignement am na information. président Macky bi muy mujjee bi muy dem di tàggoo tout le temps discours am da ngay dégg muy wax ne ñun nañuy sëkkandiku suñu këru diine yi parce que am nga xam te dañuy ñëw pour pour nasaxal leen pour indi fi beneen vision bu bokkul ak vision bi nga te ni moom mooy moom mooy moom mooy ñun l'islam bi nga xam te ni mooy l'islam confrérique donc ñooñu tey jii bu ñu mënee profiter d'une situation insurrectionnelle wala ñu mën a sukkandiku nit koo xamante ni bu ñu ko jàppalee pousse ko mu nërmeel dëkk bi indi fi leneen mais dañ koy jàppale c'est aussi simple que ça maintenant man dossier par exemple dossier Sonko bi des fois je me dis pourquoi l'État ne communique pas des fois aussi je me dis que bu l'État communiquer waxee lépp également dafay dafay daf mën na tiital population yi et je man je sais que du responsable Pastef yëpp xam nañu xam nañu li xewoon. ah bon ah oui non je suis sûr que ci biir président bi jàpp nañu ay responsable Pastef yam te ne xamuñu lu xew parce que des fois c'est à un niveau stratégique la ñuy jëlee décision yi faut pas yaakaar ni Macky Sall li muy def yëpp APR militant APR ko. Macky des fois mu def yoo nga xamante ni waa mais c'est plus proche collaborateur duñ ko yëg et c'est valable pour pour pour pour Pastef ndax kii li mu wax ni certains cadre de Pastef Europe la wax man leer na ma ne am na ay cadres Pastef yu ne ci kaso bi yoo xamante ni yëguñu li xewoon ci biir parti bi mais par procureur buy jàpp day def day de police gendarmerie buy jàpp dañuy def dañuy dañuy dañuy buub